Alkitab akan الخطبة Alkitab لن يكون الخطبة القلب Alkitab يكون حديث من الله محمد صلى الله عليه وسلم Tentu soal Quran dan efek Al-Quran nam Maqad buka ya suami Maqad bukum idra wa tunna yusufu an nafsi Maqad bukum ayyuhan muhtadu Al-Qad ini sini Arab Moy ma'asyadul qawma Lan moy sendiri, Lan moy seyidid Maqad buka ya suami ثلاثي له حمل على وزن فعل له على ذكر على مؤنث waaye alxibbatu ci arab mooy firi labat boo xam ni d'accord nañu ba sëy war caa dugg moo tax yeneen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni laa yaxtubu ahadukum ala xibbati axihi su kenn ci yéen labatee ba d'accord ñu waxtaan ay soxna bu keneen ci yéen di jaari sa ginnaaw di labataan ngir bëgg a jël soxna boobu mooy ñaari kàpp mooy al xutba xutba mooy ay kàddu yu ñu bind wala ñu di ko yepp jàpp imam di ko def ay nit ko teew mu amit duruus yoo xam ni day am mawwaay waaye day am bashir day am nazir xutba day nekk kàddu yoo xam ne dañ ciy def jawaami'ul kalim mooy kàddu yu tënk lay doon waaye yu bari la ci doon xutba nag su ñu ñëwee ci deuxième point mooy dafa bari lool waaye ñun suñu thème mooy xutbatul juma boo demee ci téere bi ñu tuddee taarixul adabul arab nga xam ne Karl Brookman moo ko bind nekk benn nit boo xam ne ñu julli day wax ni société bi yàlla Muhammad saxaaba yi ko wëroon raw yeneen ñu dul ñoom mooy dañoo amoon chance bu semaine bu jot yonent yàlla Muhammad da leen di doose ci xutba ak mu jot mu may leen benn xutba ci Iidul Fitr may leen benn benn xutba ci Iidul Adha waaye bu at Màkka jotee mu doose waat leen ci benn xutba bu yow maa xutba yooyu nag boo ko xoolee day ñëw si ñetti étape benn bi mooy xutba semaine nga xam ni àjjuma lay doon àjjuma ba àjjuma ñu delloo ci xadis yonent yàlla Muhammad wax na ci xadis diggante ajjuma ak ajjuma dafa war a nekk farabu bàkkaar ci bépp julli li tax mooy doos bi nit ciy jëlee ci ajjuma ji xutbal ajjuma doos boobu dafa war a mën a gunge ba ajjuma ñëwaat waaye mayoon na leen xutba kan korite daa leen defar xutba xeet Tabaski xutba boo xam ne nag benn yoon mën naa am mu la nit di am ci dundam yëpp muy yow waat yonent yàlla Muhammad ak moomu aji jee nga xam ne saxaaba yi ñoom lépp dina bëggoon a aj fu ñu toll ñu ngi laaj te kañ la yonent yàlla Muhammad di aj ak na yonent bi déclaré ne déwén dina aj ñu tas ko ci àdduna bi yëpp mais yonent yàlla Muhammad dina aj ak moomu loolu aj ñu aj muslim ñu aj donc téeméeri junni julli dem ànd ak yonent yàlla Muhammad aj te la yonent ma defee xutbaam boobu ñuy tuddee xajja boobu la ñu tuddee xajjatul wadaa xutba waaye nag ñun xutba yooyu yëpp xaj na yeneen thème lay doon waaye suñu thème tey suñu thème tey mooy xutbatul juma ndax waxtu bi ñu may ñu muus yeneen façon xutba xutbatul juma dafa am rôle bu rëy bu muy joué ci defar indi tey bala ngay wax mujtama faaw nga wax ci nit ki moom doom la chaque ni boo ñëwee toog da nga war a jàkkaarloo ak imam jamono bi imam di xutba da ko war di xool waruloo sax dawale sa bët ak imam lan moo tax moo defaat ay anwaar yoo xam ni yàlla bu jëm ci imam bi pour xool jëm ci imam bi waaye xoolal al asaadatu fil xutba asaada gi mooy bépp imam bu taxaw di xutba imam boobu taxawaay yonent yàlla ko ma taxaw ndax ñun bu ñu yàlla mayoon ñu fekkee kemaaru yonent yàlla Muhammad su àjjuma jotee bu ñu safoo ba julli ji su ñu demee yonent yàlla Muhammad dañuy fekk sa mbir na ko taxaw wala misaal bu gën a jege bu fekkoon Cheikh Oudar bu jaay ñu ngi dund tey moom Ahmadou Ndaw Seck te ñun ñëpp bu ñu sangoo solo ñëw ci jàpp ji ngi julli si bu ñëwee ci minbar bi jëmmi leer ci maam Ahmadou Ndaw Seck la ñu kon keneen yonent yàlla Muhammad fa moom kon dañoo seggal kàddu yonent yàlla Muhammad man wala yeneen ko kenn léegi nag lan mooy rôle taalibe bi ñëw mooy boo xam ne dafa war a jàkkaarloo ak imaam di ko xool lan moo tax mooy am na leer yu jóge ci imaam war a ñëw ci moom leer yooyu nag lu tuuti da koy xañ taalibe bi xam ngeen projecteur yi ñu yi ñuy ñëw ci jàkkaarloo wala moom yàgg ko xoolatee doo gis mooy li muy joxe dafa diis ci bët ba am na loo xam ne doo ko mën a waaye bu ñu duggoon ci néeg ñu tëj néeg bi làm yi yëpp fay lamp yëpp kenn ci biir dootul gisat lan moo tax mooy leer dañ soxla woon dafa leer bu ëpp te bu leer bu ëpp duñu gisat kon léegi bu ëpp bi trop nit ñi mën na bañ a gis ăn ñu nit ñoo def tuuti mën na bañ a gis waaye nag am na fu muy toll kii daal yooyu day dañ loolu tax am ko àndi kalaat ida balaxat raqiya wa qiila man amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar nga xam ne kenn la ci kenn yi nga xam ne ñoo nank lislaam ak li muy baax baax nga xam ne nit ki bu gisee lu baax da ko war a digle bu gisee lu bon da ko war a tere yonent bi yonent yàlla Muhammad nee na boo duggee ci jumaa imaam bi xutba al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wàcc na ko ko def kon kii wax imaam di xutba yonent yàlla Muhammad nee na bu bari noppi lan moo tax parce que yow boo gën a noppi rek yow déconnecté nga sa diggante ak imaam boo ko yonent yàlla Muhammad nee na boo déconnecté yow julli si nga am ko tuyaaba waaye yoonu aju ko war moo tax weer di boo lim laa salaata lahu man qaala li saahibihi ansit wal imaamu yaktub faqad laga wa man laga fala jumuata lahu am nga am nga julli waaye amoo yoonu aju moo ki ñëw yàlla xattaf li xaabal naas ñoo yem ki ñëw fekk nit ñi julli muy jëndi seen bakk yi di def ñoo yem kon connexion boobu daa am lu koy war dafa am benn saxaaba bu tudd xam ko la kon ko yonent yàlla Muhammad lool benn bés bu ñëw fekk yonent bi toog toogal moom di waxtaan waxtaan di waxtaan ba xool bi tooy xam nga la jógee ci képpaaw yonent yàlla Muhammad ñëw bi muy dox ba am këram nee na xamul fan la jaar xamul yan bett la jël waa bu waxtaan ak borom kër gi tuuti yëpp ni la mu yoroon ba muy toog ak yonent bi yoroon mu daw ñëw bi mu ñëwee fekk yonent yàlla Muhammad toog mu ne yonent bi naa fa ba xansa man xansa la jàpp naa ne am naa fa ndax su ma toogee ak yow dama jëm gëm yàlla bu wér yëpp sori waaye su ma ñibbee si kër ga wàcc kooku la koy branché la yëgu ko waaye par bu résultat amee moom bu diisee xam ne moom diis na waaye fii fi ñu jaar ba yëg ci si moom yëgu ko jullit aaju ko noonu la def tey boo fi jógee génn rek dem ñibbi da ngaa war a sentir yow waroon téléphone bu feebar chargé waat nañ la ba nga fees yonent yàlla Muhammad ni ko bi nga fiy jógee ni nga meloon boo continué woon loo ci dolli man di saafante malaaka yi waaye nit dañ leen di wàcc kon am na ngëm yàlla ko xam ne ah doo fa àggee état yooyu dafa kawe lool loolu lay waral nekk nekk ci wàllu Seydul Mujahid moom Ahmadou Dar Sen am na ay jëmmi leer yoo xam ne bi mu leen la leen sax ñu ko di ko di ko di ko takkaraat xam naa ci mag moo xam ne da koo gëm gëm ko waxal laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ba mu koy répété juróom-ñaari yoon ci la góor gi ñëw foofa léeg-léeg nga dugg xamul fa mu jaar waaye ba léegi yëg see yëngu xutbatu jumaa noonu la léegi kenn ku nekk ci ñun na jàpp ni heure bu solatee yére di ñëw ci àjjuma bi na jàpp ni daa ñëw ngir déglu kaddu maam Ahmadou Gassène waaye daa ñëw ngir déglu kaddu borom ko imam bi lay bi lay jiite kon ba tudd maa war bi mu am mooy dañuy war ñun jullit ñëpp ñun dañoo nekk ummatan waa loolu waral bu ñu noddee àjjuma lu waaj mënoon di jàpp bàyyi ku nekk jóg si kër ñëw suñu ñëwee ñun ñëpp ñu def ay sàppel sàppe yi ñu def ci xutba ci bisu àjjuma sàppe yooyu dañu war a jàngal mooy ëllëg yowmul qiyaam ëllëg yowmul qiyaam ñun ñu wax ni ñoo sopp yonent yàlla Muhammad ñun dañoo war a bokk ay sàppe ñu bokk yonent yàlla Muhammad ëllëg dañoo war a bokk ay sàppe waaye li ñuy jàngal mooy ñun nit ñëpp genn kàddu la kàddu gi mooy laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah damay wax ni mag ñi gën a sonn ci réew mi seen mbaaxu bopp ndax ñoo ci sonn am Ahmadou Ndaw Seck ba muy gàddaay ca la ba Kajoor di ànd ak Cheikh Mamadou juróom-ñaari boobu bu doon baax moom donc gën kër ndax boobu yàlla def na ci mbaax ci ci moom baax boo xam ne mën na koo leeral leeral na nga ko tax waaye lan moo ko taxoon a sonn mooy ëllëg ñi ñëw ci ginnaaw bëgg ñu am benn tool ba ci yow damay nii jaar jaaru xaalis bu ba mu doon si si bi mu jógee xar yow fekk tàmbali ak alquran bu cher lool fonk ko ca loxo daal di jooy jooy yu mel su daal di ko chaqal ni am mel jihaad kon daa ñu ne du sàggat moo tax ma ñàkk laa jàng ba xam cher waaye xam ni kàddu laa ilaha illa allah muhammad dëkk ba kama am bàyyi la mu gàdday ko juróom-ñaari at bàyyi fay xamasatu quran tas këram bu ko yàlla laajee lu tax nga defoon lu dul sa bopp ndax dina ko wax ni ko chaqal ni am mel kàddu laa ilaaha illallaah woote woon ma a kaa taxaw ñu tax ma tas dëkk waaye coono yemu na yëpp bopp yi ñun ñi nga xam ne dañoo wax ne dañoo bëgg Cheikh Oumou Diagne nekk yi ma nag yëpp si fu leen i jàll di julli waaw ba dina yoon di yomb mais lan nga defal diine waaye ñun bu baaxul ci ñun ëllëg boo jàkkaarloog yàlla jàkkaarloog yonent yàlla Muhammad jàkkaarloog Seydina Mujahid bu la nee lu la teree baax lu wax mbokk yi am nay jamono dund diine jafe woon na lool am nay jamono dund diine jafe woon na lool waaye mag dañoo jëloon seen alal jël seen deret jël seen njaboot joxe lépp ngir défendre kàddu laa ilaaha illallaah ñun nag tey xam lan la ñu am tatbiq kan la ilaha illallah jëfe ko ñun mooy suñu mën waaye la doon défendre ko mag ñi def nañ ko mag ñaa jëloon seen i xeej seen i jaasi seen i maq dóob demoon teg ko defar tey boo demee IFA jurigèr nga dugg ci archive Sénégal boo ñëwee ci xarit Samba Sarr boo demee jurigèr doo fekk Samba Sarr ñoom bataay bi bunt la ñu xarit bunt xam nga li ëpp Samba Sadio mooy Samba Sadio boo xam ne fi ñu doon xaaree dëkk boobu la gën a jege léegi comme ñun ña fa doon xaaree ñoom dëkk boobu pour dëkk boobu lañ jàpp rek jox ko turu xaaree parce que itam bi ñu tudde première xare ci islam parce que place bi ñu ñoom ñu jël ko tudde ko Samba Saar waaye bu dee archive nationale yi ñoom dund lañ nga imagine xare boobu ñeenti téeméeri nit ñu màgg kenn ci yenn riwaay am yu joxe lu am yu joxe lu ko dem xarak bi ñuy wàññeeku di génn xarak ñi nga xam ne ñu ngi noyyi ñi des ak noyyi laaw oto yi ñeent ñi des ak noyyi ñi des ak ñuy noyyi ñuy jóge bunt bi ak si fi ñu jóge woon fukki fas ak ñaar daam na ci yow ngeen jam jam bu benn bi dëna ma ne ñooñu bu ñu jàkkaarloo seen borom wala ñu jàkkaarloo bu ñu wut luy toog waaye ñun lan lañ sonn te léeg-léeg ñu war a julli àjjuma nga gis ku toog léegi nag damay bàyyi tool kan moo la xamante ne ëllëg dina la fekk ngay wax am Ahmadu daal seet dafa jëf bañ waaye dafa wax itam laaj mbokk yi bu ñu liggéey xol bët ay alquran la ñu war di fàtte yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatih wala tamutunna wala tamutunna illa wa antum muslimun lu mbir mi métti métti lu mu gàpp gàpp jafe-jafe yi bari bari seen kaddu laa ilaha illallah muhammad rasulullah sàmm ko mooy suñu sàmm sàmm kaddu googu mooy suñu sàmm waru kenn si ñun warut a génn àdduna dafa fekk ay cëram manqué wuñ ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah gis nga ni ñuy lekk suñu yaram yi di màgg di di yokk nga xam ne da ngay gis ni teg ci ay at boo ko gisee diw mu ngi màgg suñu ruux yi noonu la war a màgg ruux da nga yegg ko màgg waaye xam nga la moo koy lekk ma la moo ala bi tatma'innul qulub ñetti étape dundub àdduna gi dundub àdduna gi suñu yaram yi ñoo jiite suñu ruux moo tax jëmb ju nekk boo koy xool di nga gis jëmb ji nii waaye bu nga laajee fan la boo xam ne du dox ay fan yu néew la nit ki def ci kaw suuf di ay weer dañuy am faat faatoo ñu xotti ñu xotti kat ci biir suuf denc mbokk yi xalaatul barsax yi foofu mbir mi day wël ruux moo fay jiite jëf mën a nekk ci biir bàmmeelam xasaraatul àll bu fekk fa lekk yaramam ba mu jeex te terewul mu yàlla ñu koy parce que foofu moom moo koy jiite gisam su ñu demee yow mu yàlla boole wu mu yàlla foofu waaye mbokk yi ni ñuy góorgóorlu ñu sol lu fekk di góorgóorlu lekk baax ngir màgg lu ñu góorgóorlu ngir nandal ko comme noonu ci laay la rek la baax ndaxte kat dañu leer ni démb ak barki démb suñuy maam ak suñuy maamat maam yooyu dañ fee nekkoon suñuy waajur doon xale yu ndaw fa seen ginnaaw ay at jàll maam yooyu jóge fa waajur yi nekk tey su ko demee ba waajur yooyu jóge fi ñun ñu des ñun bu ñu amee xel xam ni fan yu néew ci kanam dinañ fi jóge ñeneen waaye mbokk yi bu dem tëdd fële boo jiite loolu baax na ci man damay faral di wax ni warul yaafus taalibe teral warut a yaafus ndaxte buur gi dañoo jox yoo xam ni ak yaafus amu ci te la di àll di la àllu di la allahu akbar leneen la ca dugal mu nii ngelaw yaa ngi dolli waaye ab buddi nag day xam ni loolu di wàllu ci àll loolu xitma ak taxaw yi kon boobu àdduna gi ñuy waxtaan yooyu boo ñëwee dégg ko imam point yi muy waxtaane yëpp problème yi ñuy dund ci kër gi solution yi du nekk du nag imam mooy ñëw point bu nekk mu ne lii mooy solution waaye boo ko xamee da nga ko war a jëfee boo ko xamul nga def laaj saxaabatul kiraam dañoo amoon ñaar mooy asadiqa ak al uruba ay arab yiiw lañ te dañoo dégg làkk bi trop waaye terewul dara daan xew ñu def ba ci yonent yàlla Muhammad ni ko lii làkk ba jullit bi ñëw heure bu amee problème su ko mënta rek ñu mu nekk mën ñu ko rek daa war a def ci biir tey médicament médicament yi ñu war a am jullit war a am mooy léeg-léeg dafa war di toog ba yàgg mu dugg ci pharmacie pharmacie rasulullah tey ñu ngi feebaree suñu yaram yi dem dem ci pharmacie yi jëndi garab léeg-léeg dañoo war a feebar yëpp suñu roobee daanaka bu ñu génn suñu yaram yi suñu ruux yi suñu ruux yi yëbatul su boobaa dañoo war a dem ci pharmacie rasulullah jël ci fay boobu léegi nag nan la ñuy def ba mën a dem ci pharmacie rasulullah ba jël ci ay boobu ah boo toogee ak imaam bi xutba xutba bu njëkk bi jeex commencé deuxième borom mooy sax yow xam diggante ñaar xutba yow waxtu istijaabu du'a waxtu la boo xam ne ab jaamu fa tànnal loxo yàlla bi du bàyyi doo fa ñaan yàlla wala yi ngay jëm ànd ko di julli yéeg a ñëw te amul lenn loo jëm lu yokk ci yow booba da nga war a xoolaat xam ko xam ne suñu xol yi yàlla da cay def benn lëkk woo xam moo koy yëngal am na koo xam ne bu doon déglu ay jaaxaan léeg-léeg mu jaral ko mu di ca sonn ba ay xam ni li ñu fi yàlla andee ñun suñu ko joxul yàlla dañ ko jox keneen cosaan li mooy bu ñu tuddee yàlla tudd rasulullah ñun dañoo war a yëg dara ci suñu xam ne nag foo romb ñuy tudd yàlla di tudd yonent yàlla Muhammad di kañ gaa yu baax yi doo yëg dara ci sa yaram bu ñu nga kontaan dañ leen yow da ngaa a bu feebar da ngay faj su boobaa nag la la war mooy nga delluwaat ci pharmacie rasulullah taxawal istighfar benn góor yàlla dafa tëdd yépp ci genn wàcc mu nekk ci benn teen teen bu fees dell ak deret waa ji deret ji di ko mëdd di ko mëdd ba ci si gémmiñ fi mu koy waxee moytu rek daal di yëw ci nelaw bu koy waa ji ñëw ci moom di ko man dama bëgg nga ñaanal ndax li ma def si ay ñaw kii daa baree baree baree bari ba jàpp naa ne li ma dese si dund mënu ma see def lu baax te moom ñëpp toog na gis guddi gis waa ji nekk ci teen deret di ko mëdd mu ne ko xam nga nan ngay def waa ji di ko am mu ne ko da ngay seet mu xaddam cheikh biir mu nekk nga dem foofu nga wax ñu ñaan waa ji bàyyi ba góoru aji mu sàmm ba set sol yére yu rafet ñëw ci jumaa ji fépp daal ba cheikh yi toog war a def seen xadratu juma mu ñëw mu leen dama bëgg yéen ñi fi nekk yépp ngeen jublu bekk ñaanal ma yàlla yàlla jéggal ndax man jàpp naa ne li ma def ci lu bon mënatuma def ci suuf def lu baax lu tolloo gaa yëpp ñaanal ko wëlbati ko ni ko da ngay toog ànd ak ñun walaat waa ji ànd ak ñoom xatra ba ba mu jeex aussi fa jot mu ànd ak ñoom ba mu gisee si jëw nga mu daanu dee ci sens ko tàggee góor gi góor gi nelaw génn lu mu génnee lan la gis ñu ne ko waa ji ni defoon ci ay mbonte dese ko woon ci a defaree bu baax du ko waaye istifaar yi ñu ko doon defal ca xadra istifaar yi daa fóot bon boni waa ji da ko doon fóot di ko def alquran ne nañu ulaayka yubaddilu llaahu sayyi'aatihim hasanaat wallahi nit dina àgg foo xam ne ñaaw nit ñi defoon si yàlla da koy changé mu nekk yu baax léegi nag tajal yi bi mu amee istigfaar yi di fóot bàkkaar di ko fóot ba bàkkaar yi jeex léegi nag jëf yu baax yi sax la istigfaar yi doon continué nag di ko fóot bi ñu si jiw xare ji nag état bu waa ji antunu ko loolu xar tamit moo tax ab taalibe biir ak fu mu mën ci mu war a xam daa war di fóot boppam mooy ab taalibe biir lañ ñuy jumaa yoo gis nag aar boo gisee fooral ci dëkk la muy wane mooy dëkk bu ne ay jaamukat yàlla nga fay yow foo gis jumaa maanaam lislaam soorool yi boo gisee moromoon ci lislaam mooy boo daan dëkk ci dëkk pour nga xamee ni dëkk bi ay jullit dëkk dëkk ay jullit dëkk ñu ba ci soorool xam foo gisee soorool rek ay jullit ñu fay yow boo naree réer ca jumaa nga koy jubal boo ko fa foo fanaan fa ngay daal ci wetu jumaa min sha'airillah la war na ko jullit ñi xam jumaa yi dañ koy dundale defar ko rafet tabax jumaa rek te waaye kàbbaar la julli la loolu lañ koy màggal li ñu jeexale mooy ñu xam xutba gi ñu ngi tàmbalee ci sant borom julli ci yonent yàlla Muhammad jégle lu baax teral ko noonu la ko imaam ci jeexale ak ñaan mbokk ñaan yooyu amul lu ñu mën a faj ci boppam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci miliyaar yi nee na ak mu'tazila nee na ñaan mooy ngànnaayu jullit kon heure bu jiite nga jël ngànnaay ku bàyyi sa ngànnaay dem xare suñ la jamee yàgg sa bopp fi ñu daanee suñu kàddu mooy thème dafa nekk thème boo xam ay waxtaan yu bëri bëri daf ci xaj ndax état nekk lañ koy wax xutba gii gii nga xam a yëpp dafa nekk xutba boo ay points yu bëri yu moo ci nekk benn point bu nekk nit mën na cee bind point bu nekk nit mën na cee bind téere léegi nag yow mi ñuy waxal ci ay kàddu yu néew kàddu bu nekk nekk téere la war mooy nga góorgóorlu nga xam kàddu yooyu la la ñu góorgóorlu ngir jëfe parce que al ilm wal amal suñu ko jëfee yàlla ñu ko yàlla yàlla bu yàlla def jotaay suñu dugub jotaay ñu fi wax fi yëpp yàlla ñu ko yàlla